ab délégation bu ligue islamique mondiale di ko jiite di secrétaire général ba docteur Abdourahman Ibn Abdallah ñoom nag ñëw nañu ndakaaru war a dem nag fële ca euh, Medina euh, baay euh, ngir nag signer abu convention convention boobu nag day nekk ci diggante lii di ligue islamique mondiale ak. union islamique africaine bi nga xam ne eh, taxawal nañ ko lu yàggul fële ca Soudan te ki ko jiite di xalif eh, général bu Medina Baye Cheikh Mouhamadul Mahi Ibrahim Niass gannaaw bi nga xamee ne nag eh, dañoo bloqué fële ca Mali lu toll ci ñeenti weer soldat yu yi bokkoon ci MINUSMA di mission ONU boobu nekk foofu la ca Mali ñoom nag tàmbali nañu ñibbisi fii ci Sénégal ñu ne sax euh, groupe ba njëkk démb jóge nañu foofu la ci Sévaré euh, ba yegg si nañ euh, Sénégal li ko waral nag seen yàgg boobu foofu la ci Mali mooy CEDEAO bi ñu jëlee yooyu la dogal ngir daal dagg bépp jëflante ak réewum Mali ñi nga xam ne tam ñooy soldats ya nekkoon ca nguur ga dañoo daal tëjoon bunt yëpp ba kenn mënul dugg kenn mënul génn nit loolu taxoon nag ba suñu soldat yooyu seen mission bi jeexoon na avril wante boobu ba léegi ñu ngi woon fa wante ñibbisi nañ njort nañ ne nag njiitu réew mu Macky li mu dem Mali lënd bi weesu gën naa gaawal seenu ñibbisi fii ci Sénégal. hôpital Aristide Le Dantec xam ngeen fi mu nekk nii nag dañ koo tëj ndax dañoo war a defaraat li nga xam ne moom mooy hôpital ba personnel euh, santé ba euh, ak itam ñay faj ak ya euh, ñoom ñëpp daal fi mu nekk nii kenn mënatu fa dem dañ leen orienté si yeneen i hôpital wante nag ca morgue ba dafa am lu toll ci. juróom fukki néew ak juróom yoo xam ne kon euh, ñu nga fa fi nekk nii ñu ngi leen fa conservé ñu ne nag trente ya sax euh, ay non identifié maanaam kenn xàmmewu leen xamuñu seeni mbokk ñi nga xam ne nag ñoom ñooy responsable ya nee nañ fi mu nekk nii tàmbali nañ sax euh, defi jéego ngir xool nañ leen nañ nañ leen di jébbalee kon seen borom loolu nag ñu bukk ko amal di bi ñu dëgmal. xibaaru Afrique euh, dañ koy tàmbaleek euh, République démocratique di Congo foofu nag bésub tey bi euh, ca capital ba di Kinshasa ubbi nañ fa 42 deuxième sommet bu communauté de développement des pays de l'Afrique australe lu toll nag si ci ay chef d'état ak gouvernement dinañ teewe boobule daje ka koy jiite nag mooy njiital réewu RDC di Félix Tshisekedi loolu nag. lii di waxtaanee kon euh, tàmbali na te buñ noppee ca euh, li nga xam ne moom mooy liggéeya moom moomale di njiit di njiit ba kon moom moomale di njiitu réew ma moom mooy euh, wéy di jiite boobule communauté ba léegi dañuy des ci république démocratique di Congo ak daal ab cong boo xam ne ay euh, defkatu ñaate fi yor ay ngànnaay kon ñoom ñoo ko amal ci benn site d'exploitation door maanaam fu ñuy euh, foo xam ne kon dañ fay utee or ba sax euh, lu toll ci seize personnes ñu faat leen fa démb la am nag ci mardi bi ca fa ñuy wax uturi loolu nag lu yàggul dara sax amoon na fa euh, ba lu toll si ñeenti nit ñàkkoon seen bakkan ci yooyu la euh, cong ñi nga xam ne nag ñoom lañ jort ne ñoo def boobu la ñaawteef ñoom ñooy ñoo ñuy woowee milice bu Codeco réewum Tunisie foofu nag constitution bi nga xam ne ka fay njiitu réew moom moo ko proposé woon euh, Tedi Kaes boobu boobule constitution nag adopté nañ ko ci quatre-vingt-quatorze virgule six pour cent démb ci mardi bi bu ñu sukkandikoo ci nga xam ne ñoom ñoo yor wàllum euh, élection ya boobule constitution nag day dooleel bu baax a baax ki nga xam ne moom mooy euh, njiitu réew ma euh, buñ ko xaymaa nag lu toll ci deux virgule six millions ci ay nit kon woote nañu boobule constitution wante nag lii di taux de participation bi nee nañ daa faible lool ndax trente virgule cinq pour cent rek kon ñoo ca participer xibaaru bitim réew dañ koy tàmbaleeg Royaume-Uni foofa nag njëg yu yokk ya moom moo leen jaaxal ba li nga xam ne moom mooy taux d'inflation bi dafa yéeg ba dix virgule un pour cent ci benn at te loolu sax dañoo njort ne kon euh, dina gën a yéeg euh, fii ak octobre bu ñu sukkandikoo ci ñi nga xam ne ñoom ñooy xayma yooyu leen mbir nee nañ daal njëgu essence ya nga xam ne daa war a yokk kon bu yokkoo njortu nañ boobule inflation muy njëg yokk ya dina yéeg ba benn taux bu yegg ci treize. pour cent dañ koy jeexaleeg euh, guerre bi nekk ci Ukraine ak euh, Russie ñu ne nag euh, ab navire humanitaire muy ab bato boo xam ne kon dafa yeb li nga xam ne ay pepp la yu bàyyeekoo Ukraine ñu ne jóge na ci pooru Pivnedi nekk ci sud bu Ukraine pour daal jëm ci ay réew gannaaw bi nga xam ne kon boobule bato ONU moom moo ko joxe. Euh, ñu ne nag fi mu nekk nii nag euh, xeex ya ñu ngay wëy ndax ñi nga xam ne sax ñoom ñooy soldat yu ak yu Ukraine nii ñu ngay euh, jongante wala boog jàmmaarloo fi nga xam ne mooy centrale nucléaire bu Zaporijia bi nga xam ne sax kon soldaar Russie ñoo ca teg loxo mars ba léegi loolu nag moom moo jaaxal li nga xam ne moom mooy communauté internationale lii la ñuy indiloon tey ci ay xibaar di la am seen teewlu ñu jox dañuy ëllëg jaa jëf.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 ak ci àdduna bi seen groupe d'information seen info international ndimbalu askan wi moo ko tax a jóg